première fois li nga xam ne moom moom laa jëkk daje ak maire moo di dama bind demande bi jox ko ni dama bëgg ku ma lotiseel mu téye demande bi juróom-ñetti at bay nu am fii problème suuf mu convoqué nu gendarmerie mu convoqué gendarmerie ma yóbbu dossier bi ba ma demee commandant recevoir nu ba mu ma laajee léegi ma génn dossier bi jox ko demande noon naa ko 2003 mu sot dossier bi ni ko ah, yow maire ñii dafa leen seen lotissement ñu dëkk gannaaw dañu bëgg a dëkk. dégg nga mu yebal fi waa Descos la xaw ma ñu ñëw fi ba ñu ñëwee ñun ñun ñu ñu ñun xool dëkk bi def def def affaire dëkk bi yëpp ñu xool ko. ba ñu ñëwee jaar si man ni ma léegi dañu bëgg a def lotissement bi maire moo nu yéen ma ànd ak ñoom ñu am ñetti fan ñu loti si côté bii loti si côté bii. ba ñuy demee ba lotissement bi pare ñu ni ma léegi kat ah, daanu yóbbu plan bi daanu ko defar yéenee ko maire. bu ñu ko indee maire ci commune bi dana la woo jox la li nga xam ne moom nga war jox say dëkk li ci des bu ko dee jaay mu jaay ko bu dee joxe mu joxe ko toog di xaar toog di xaar toog di joxuñu ma dossier joxuñu ma dara indi lu ma leneen waxuñ ba léegi ñu ba léegi ba léegi ñu nekk ñu nekk ci loolu nekk ci loolu bay yàgg léeg mu gis oto gaare ah mu ñëwee présenté wu ni man maay chef de village bi nuyoo ñoom lu ngeen doon xool fii ñu ne doon doon fi kër ah lotissement bi naka chef de village defee ba pare toog di xaar léegi gisul ko ko jox kër yéen ngeen ñëw war fee am kër ci man xaw ma ci dara loolu mënta nekk foofu la sama xeex commencé ak maire ma def samay plainte déposé naag dem naa ba of nag ndax rek bëgg ku ma wàllu amul na kilifa gu ma joxul dossier bi Sénégal gépp ku fi nekk ki nga autorité nga wala nga am bureau sama dossier bi dugg foofu